Bonjour. C'est qui ça? déglu leen jàmm la. bon sama gars yi sama gars yi maa ngi bëggee di ziar quoi ba tax na nag dama leen di présenté Khelcom lunette ñu naan ko am sax mi ngi nekk marché central bu Kaolack ba tax na képp koo xam ne bëgg nga ay verres yu baax yu am qualité gaawal gaaw nga contacté ko moo xam yi ma sol ay photo grêle la gis ngeen ni mu rafetee moom moo ma ko jox. ak ñaar yi ma xam ne moom laa téye quoi gis ngeen ba tax na képp koo xam daal bëgg nga affaire baax gaawal nga contacter ko numéro téléphone maa leen ko defal fii ci suuf ah montre boo ko bëggee bu am classe bu rafet boo ko contacter incha allah dina leen ci defal xéwal bu baax a baax kon boog sama gars gaaw leen ngeen contacter Amsa borom Kaolack quoi c'est marché central bu Kaolack yeah chaque jour qu'on dort qu'on se y a de nouveaux dossiers. gars yi nag bala ñoo commencé vidéo bi encore xam ngeen lan laa ci bëgg. waaw waaw boo abonné gul nga daal di abonné. dëgg la. bu nekkee ne abonné nga ba pare nga daal like vidéo bi. maam ay kër nag. très bien surtout loolu dañuy yokk doole maanaam di leen like vidéo yi xam naa bu ngeen di ko def mais di ngeen koy fàtte moo tax ma leen koy fàttali kon boog di leen like vidéo yi. dégg naa ko. boo seetaanee ba pare bu la neexee sax nga daal di partagé. ma la wax. lan nga wax Djiby yi. waaw. Mhm. dëgg du ok tey lan moo xewati ci réew mi sax li xew ci réew mi. waaw. mooy coow loo xam ne. taaloon na réew mi ñaari at ci gannaaw. Mm-hmm. yëngaloon réew mi ba fukki bakkan ak ñeent rot ci. 600. ah loolu de defe naa ne mois de mars la woon. ñaari at ñu tere ma génn réew mi. ok Ousmane Sonko Adji Sarr mi nga xamante ni moom moo tuumalaate. waaw waaw. est-ce que mës naa indi ay preuve ci rencontre yi ngeen jot a amal. ba léegi andiwul benn preuve. mu ni. benn. ah déedéet xanaa kay aji sañul loolu laa foog. mais c'est nag ak confrontation a amal. dañoo Maham Diallo rapport gendarme yi mm-hmm. rapport bi am signature ñu ko war a signé mm-hmm. am cachet yi waaw am lépp liñ ci war a nekk mais est-ce que mën nañoo xam lan la rapport bi di wax rapport bi wax ni waaw Serigne Bassirou Gueye bokk na ci complot bi dëgg la ñu déglu ñi nga xam ne ñoo nekk ci dossier bi mm-hmm. muy commandant Mbengue ak capitaine Touré waaw ñoom ñëpp ñu ne Serigne Bassirou Gueye moo modifié PV bi ah moo leen sant ne leen changé leen lii am na wala amul waaw ah, loolu dafa leer bañ ko moom Abdou Mbengue nangu ko

daman man bi mbir mi gabiso waw maître Gabi moma wo ma ma demal jëlal mako hmm ma mm-hmm. xey la lendemain defaguma sama PV. Mamour Diallo ak dima di waw wow ya yemul ci fofu de. deug la. mu jël audio bo xamné ne Mamour Diallo mo ci wax. waw ne ko est-ce mën nga genn goudigi gi ci cour fa biñu gissé gisee. Mm-hmm. té Mamour Diallo nee na moom. dossier bi dudul fan yi la koy dogu yégg la ci dogu ah, de waay de. mu bolé clé USB bék yoy yépp jox ko juge. Mm-hmm. ba pare ne juge bi boobu ba léegi ñu ngi may menacé de mort. ah. ñëw nañu sama kër dajji ko toj nañ sama oto. toxu naa toxuwaat. déposé naa plainte gendarmerie. Lol de leer na. juge d' bu am lol est ce que waroon na dossier bu instruction. Ma juge d' muñ na na sukkandiku ci lol tamit. mu jël ko tek ko feulé. ah. mais c'est honte. juge d' instruction boo yor nga certificat médical bo xamné ne nee la fii viol amu fi. Mhm. luy mandargaal ni joté amna fi sax. waaw. Téñul ci certificat médical waxuma la viol. xanaa nak muñ na jël bobu nak nga jël lolou tek feulé hein né loolu ah? intéressé wu ma. ok. da fay ñaaw nañ waxante dëgg dara mënu ko justifier. mais c'est bizarre. juge d' bo xamné xam doon liggéey ci bërëb ba yëpp déglu nga leen. Mm-hmm. ñëpp ne la ngay wax mënul ne yëguma ko.

ki ñuy wax MC Baye Mbaye ñas wóolu nga ko mu ñëw mm-hmm. bi mu ñëwee nga ne ko yow li nga wax foo ko mu génneel la clé USB boo xam ne ay audio moo ci nekk mm-hmm. audio yooyu ki nga xam ne ne dañ koo siif moo ne siif bi musul am jote sax amu fi waaye ñoom Mamour Diallo moo ma dugal ci lii waaw nga woo ki nga xam ne moo jiñaate de mu ñëw nga tegal ko audio bi ne ko ndax lii yaa ko wax avocat ma ngi toog mu ne waaw lii sama baat la man maa wax waaye dama doon foo ak moom kon dossier bi am na ay foo kon dama ko doon làmbatu rek pour xool mbaa loolu mujj na koo doy kon xanaa nag nga ne loolu doyu la yow juge d'instruction

preuve yi nga wax de bu nekkee ne ni la démé man de japp naa ne lii moo raw projecteur ci deug du rombi nop té bu fekké ne tamit ni la démé mu dégg li yépp té ko ci souf japp naa ni Omar xam Diallo dafa def lu ko neex wala liñ ko sant mani kooku Sonko baye ñu yàpp yàpp nga ñu yàpp bu démé nan doyen des juges jambour la mu di sosal Yo tamit xana Ousmane Sonko du jamur ci yow ba mo bu ñaaw bo yëkëti rek tek nga ko ci deram li nga wax moy dëgg ay wax xali Sénégal dama leen di ñaan ngeen xam ne Ousmane Sonko du nit Ousmane Sonko du référence Ousmane Sonko du ku baax Ousmane Sonko ko bon la Ousmane Sonko jomm naa ko dëgg tey bu waxee lii ëllëg wax leneen. muy te man daal gis ngeen ku du son ci addunaam ci maître mii rek laa ko gisee. kii dof pilis la. koo xamante ni saa yu ñu la dékkee micro rek nga nekk fa naan da ngay conscientiser jeunesse bi te alors que jeunesse bi mënuñ la nopp. ah kii day siisu nag te siisu baaxul kat. man daal je suis peur daal. Ousmane Sonko keroog. biñ ne ko doo laa bëggoon dafa am kii comédien la xale yi yeewu leen. yow kay del comédie rek ñuy reetaan. ca ngoon ga loolu dix heures la woon mooy une heure mu ñëw ak yére bi ñaaw yooyu gannaaw bi xam koo ñamal xanaa àll ci àll bi ka nga ñamalee. eh maître fii kenn du fi saboté de. leen li may sol waay. kon yow jàpp nga ne li nga sol dafa rafet nii. xam nga dama moromam de. ndeysaan moom nag nandite la jàppee boppam de. xam nga moom du nandite seer la. yow tawal foofu di comédie ñuy reetaan rek. du nandite seer bu bon la xoolal garab bu bon la sol ñëw. non sa waay kii ko jox réew mi fu dem ñu di ci saboté wala mu ñëw ñu ne damaa bëgg a julli ci jumaa da ngeen ma ma julli ci jumaa mais moom amul droit ne day julli ci jumaa tamit. ci dégg naa du julli sax jumaa gëmul lislaam. ah. lu julli sa far dégg naa. booy yaa mën a neexul ba neexul nag mais man musuma gëm ne nit dina bañ nit yenn bañu metti yi ba di ko traité yenn mooy rëy yi de mais c'est honte mais bon nag dalaa jiital ba bañ nit ki ba gis ko ak gis say butit nga yemale ba moomu ñaaw bu bon boo yëkkati rek te nga ko ci Seydina Ousmane Sonko mu sell mi fu mu sellee xamoo ko askan wi ku seexal askan wi na wujji kan lay wuy ji léegi am na nii wii nii non bu bees nii wii nii non nii wii nii non boobu moo bés léegi nag. ah dee waay dee. ki dem na ki départ na bu yàgg te yóbbu leen ko. loolu sababu Macky Sall ci ay niiw yi nii léegi niiw yi nii noo xam nañu moromam. bu chanson bi xale yi jël leen boobu chanson. école primaire yi niiw yi nii noo. dafa désolé waay. être comédien. ñaaw. ñàkk fayda. iñaan. xol bu bon. waaye di. benn femme bu tuumaalaate avocat yëpp jëppi ko ba kenn nangu talaal dossier am. té heure bu moko invité ci question réponse ba dénk ko micro. wa waaw. mu tuufli sama kanam gi ba ba paré daan ma. mom kay fenn dessul tuufli nga mom bam mu <laughs> nañ ko yemale fi ba benen yoon man de li la wax mbaa yéen tamit loolu ngeen wax. Ah, man ñun li nañu mëna wax a da bu ko défé ñu jox maamu ñaan ñu tasaaroo ba beneen yoon. والشمس وضحاها moom kay tufli na ma ba mu tooy xeeb. amiin. ferme <laughs>